asalaamaaleykum soppe ba tey rek duñu tàyyi mukk di jël yu baax yi ngir tegal leen ko ci table fii ci seen émission table yaa ngoone looloo tax nag ñoo ngi fii par droit impôt et domaine ñëw seet si leen benn ndaanaan bëgg leen a woon nag benn ndaanaan boo xam ni ràññee nañ ko ci li muy yëngu muy sëriñ El Hadj Kandji di ndaanaan nag Fiji Padua Padoa impo domaine dende ak école privée bi nga xam ne Cosmo Bodim. Sering Elhaj ñu ngi lay nuyu bu baax a baax kàññi di la ziar. soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax soxna Mati di leen ziar bu baax euh, ak yéen waa table yàngoon yëpp di rafetlu seen teewaay fii ngeen voilà sëñ bi nag ñun dañoo dégg te xam nga bu ñu déggee lu baax fu mu nekk rek dañuy dem génne ko ngir teg ko ci table bi dégg nañ daal ndaanaan nga ci wàllu faj am nga yu bëri yoo xam ne te yaa ngi koy faj te ci dimbali jaamu yàlla yi te doo ci laaj loo xam ne ku ko dégg day jàpp gémmiñam ñu bëggoon rek nga gindi ci ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan yu baax yooyu ngay def. waaw Mati jërëjëf macha allah noonu la demee parce que adduna noonu la ndax yàlla dafa wax ci alxuraan wa ma utitu mina ilmi illa qalilan nee na nit joxuma leen ci xam-xam lu dul lu tuuti yàlla nag loolu mu joxee lu tuuti loolu dañu ko baaxe baaxe gi mu ñu ci baaxee nag il faut nga baaxee ci doomu aadama yi baatin mbir la moo xamante ne dafa nëbbatu ndax soo xoolee mbirum baatin ak batnu benn la batnu mooy biir ci ci làkk arab baatin mooy lu nëbbatu kon lu nëbbu feeñal ko warul waaye dañ ci coppe tuuti rek teg ko ci taabal ji wan ko doomu aadama yi comme ku mel ne eh, ubbeeku doomu aadama yi dañuy bëgg di ubbeeku fu ñu toll ubbeeku nag mooy ci sa wàllu liggéey mooy ci sa wàllu côté yëpp am na ci ay bagages yoo xamante ne pour loolu la ubbeeku la am na ci xaatim yoo xamante ne dañ ko liggéey sol ko comme yu mel ne yooyu tabaarakallaahu nit ñi dañ koy sangoo pour ubbeeku ci seen wàllu liggéey am na ci it lu mel ne comme euh, xale yi jigéen ñi dañuy faral di bëgg sëy mu tëleen lool am na ci ñoo xam ne nag non yàlla baal dañoo mën a taamu am na ci ñuy ñaaw tamit waaw mais nag am na ci yoo xam ne tabaarakallaahu comme ku mel ne kii xorom la mais dafa am lu mu àndal ñu composé ko ko kii bi bu fekkente ne da nga koo jox uh, ki nga xamante ne mooy jigéen bu amagul borom uh, boroom kër wala góor gu amagul soxna tegtal yi ñuy yi ñu ci digal boo ko defee ragal naa bala mooy yàgg di nga sëy incha allah bu ci yàlla ande for naa ci wéwu bët ñuy wax lem bi lem bi lem bi lem bi daal temps yi moo xew lem bi lu mu doon. waaw lem nag dafa bëri bagage dafa xam naa sax moom ki la ko wax xam naa xam na ko parce que lem gi dafa am lu mu àndal. ki lem la mais dafa am lu ñu ko composé def ko ci biir gis nga lem gi maanaam turu lem la mais li ci nekk moo garaaw tey jii duñ ko defal sax kurul koo xamante ne day sëy ak borom këram maanaam couple rek lañ ko defal ñuy sëy parce que kii bu fekkente ne euh, li ci nekk li muy jëriñ wax nañ ko kii sëy mu utiliser ko comme niñ ko ko waxee mhm. kooku digganteem ak borom këram day neex comme lem ta du yàqu kenn du ci mën dara. am na ci it ba tey mhm. ci xaatim bee moom dafa am benn reen bu muy àndal reen bi yaa ngi koy wutu bisub altine. nga koy nga koy wut te soo koy wut da ngay summi sa mbubb reen boobu muy àndal nag boo ko jëlee jox ko góor goo xamante ne dafa tële maanaam li mu nekkoon dana dañ ci moom tëli bu fekkee judduwaale ko dina dina ko bàyyi wala nga dem ba nga xamante ne yow maanaam amatoo doole wala ñu takk la xaloo tamit daf koy daf koy daf koy daf koy dindi ci góor gu tële salaatu ala bi lañ ko liggéey boobu eh, pour jigéen ju bëgg am doom la parce que boo ko liggéey pare da koy boole ak ginaar ginaar gi nag du meen wax nu mel mais boo ko defaree ba pare jox ko euh, ki nga xamante ne moom moo bëgg am doom mook euh, kii ñoo koy lekk euh, ku góor gi ak ku jigéen gi bu ñu ko lekkee bu ñu jotee incha allah yàlla mën na ko may njaboot. waaye ba tey nag pare gu ma de ci nga xam ne dégg-dégg yi. laaw la cet gis nga nit boo mënee sa liggéey di nga fam lay yóbbu sax doo ko fekkee maa ngi dégg it ñu naan jaaro bi jaaro bi jaaro bi nee jaaro bi it la ngi ci di maanaam daal laaw la cet daal ci kànj dafa bëri bagage. waaw jaaro bi dañ koy liggéey mais jaar bu ñu la ko liggéeyee man dama la koy jox yaa koy tëgg jël xaalis pur nga koy defaree kook boo ko defee yàlla dogal na même bu fekkonte ne dangay dox foo xam ne da ngay rombul obstacle booy war gis doo ci egg wala bu fekkee da daje koo xamante ne maanaam da nga ko dafa nit la ku setul daf la koy wan même boo doxoon nag daje ginne sax guddi jaar bi dafay mel ne lumière ci moom ci ay bëtam waaw te it dafay ubbi sa wàllu wërsëg ci lu bëree bari ak yeen yoo xam ne kii mënta wax lépp daal fa tabarakallahu waaw am na ci benn boo xam ne ci xaatimu ko liggéey mais kooku pour nit ku xonq la bu fekkente ne dafa am looy lijjanti ci buur wala ko xonq boobu da nga koy sëlmoo wala nga galaxndikoo ko moom boo ko defee même ambassade boo demoon sax ñaani visa incha allah danañ la ko jox même kayit boo koy lijjanti incha allah di nga ko am. koy ñaanal da ngay xool ko war a ñaanalee ci waxtu bi ci heure bi parce que am na ñoo xam ne seen waxtu day nekk ci suba gi ñi nekk tisbaar ñi tàkkusaan ñi timis ñi gee mais nag fi nga koy mën a xoolee boo xoolee fii fii dafa ne lëndëng nii waaw waaw Euh, mi ngi nii àjjumaa ngi noonu am na waroon xool tey ji doon xool ku mel ne Mati xool li nga ko war a defal fa tabaarakallaahu fi nga koy xool xool ba xam waxtu bi nga ko war a ñaanal suba gi la wala ngoon gi wala tisbaar wala tàkkusaan la am na ñoo xamante wax a àjjuma lay nekk ginnaaw bi ñu julli juma pare wala avant ñuy julli juma waaw am na ñoo xam ne dañu defal loo xamante ne maanaam kooku maanaam mën nañu sur place la comme ku nekk fu sori bu fekkente dafa am soxla bu urgent nga xamantene du uh, xam do meuna am comme temps bi nga yone ay ñaan ak yoyu da ngay tok fi rek dag li ngay dag dugal ci turu wayjurum ak mom liggey li nga war liggey après am lo zikar def ko boko defé rek fa tabarakallah yalla meuna dako lolu mu amon yalla fayal ko soxla bo mu amon dal dama bëggoon rek nga jox nit ñi numéro téléphone yi ak adresse bi ñi bëgg ñëw meuna ñëw ci yoon bu mu ci ayib waaw tabarakallah soxna si adresse bi mom ñun duñu changer adresse fi ñu nek biñu nekk fi la ñu nekk moy padwa numéro téléphone tamit du changer ñu ngi Padois fii impôt et domaine ci wetu école Cosmo Boudim bi ku fi ñëw ba ci école Cosmo Boudim rek boo wootee dinañ la jël si euh, numéro téléphone yi la 77 547 85 82 am na 77 625 51 76 am na 77 929 14 14. yooyu mooy numéro yi di xamal ne ñi ne ku woote it dañu jot wala nga jot suñu ndaw koo jotee it mu ne la ñun nga jot fa tabaarakallaahu ñu ngi nuyu ñëpp Facebook it ñu ngi ci boo defee Serigne El Hadj Kandji di nga gisu suñu Facebook am na bu tudd boo xam ne tamit euh, génération vert blanc ñoo ko bi muy daayira bi am na boo xam ne tamit gaynde njaloor ñoo ko bi yëpp ci suñu euh, suñu Facebook la am na ñu koy gérer te ku ci euh, jokkoo da nga ku ci jaar rek di nga mën a déggante ak ñun daal tabaarakallaahu di sant ñëpp di gërëm ñëpp